la agent reproché mhm. euh, ñu ngi lay nuyu di la di ci plateau Walfadjri asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu nekk ci plateau bi képp ku ñuy seetaan ci internet bi euh, képp ku ñuy ak ci télé bi d'accord Aliou Aliou léegi kii bi pour affaire garde corps rapproché bi comme mi ngi gis ci vidéo yeeg yooyu léegi kan moo ko war a jàng ak kan moo ko war a mën a jàng ñu ko war jàng mais ñu ko pare ñu mm-hmm. apte pour doon agent rapproché mm-hmm. parce que léegi da ngay gis léegi wutam mi ci bi yàqu mm-hmm. ku si nekk dee daw dugg si parce que tey jii dama naan sax te daw eh, dawakati seret bi sax amul lu mu def sax ñëw dugg ni si métier bi parce que au début métier garde corps dafa doon métier boo xam ne métier risque la métier noble la léegi nag métier bi dafa yàqu carrément voilà léegi si kaw balaa nga siy dugg foog dan la war a laaj sa casier sa yenn papier yoo xam ne ñu xool ndax kii bandi la wala du bandi donc ñun suñu école muy Sénégal garde corps loolu lay def voilà école la. mais ci affaire affaire euh, garde corps rapproché du woon waa armée ñoo ko am man si kii ku deful armée mën nga ko waaw képp ku def armée war na ko def képp ku def euh, corps privé mun na ko def. affaire de. Euh, mhm. cerveau la rek. Mhm. mentalité bu normal mm-hmm. voilà pas un gros bras wala quelqu'un koo xam ni bande la voilà waaw mais fii Sénégal gros bras mooy ñuy wax góor yi pour ñoom loolu mooy gàddu ko rapproché aussi non souvent souvent souvent da ngay gis ñooy ñooy c'est les nervis yi. ah c'est les nervis yi dafa am. la différence entre agent rapproché ak nervis yi. souvent man dama naa ne c'est les nervis yi ay gungekat gan nañu. Ah. Ah. ay agent rapproché nag mais koo xam ne dafay hmm. jël moom viwam hmm. pour protéger la kooku mooy agent rapproché yow fii nga fii nga formé woo Sénégal waa formé hmm. naa fii Sénégal dem na Maroc tamit formé foofu léegi euh, si vidéo yi gis ne ñoo ngi xool ne euh, si vidéo yi maa ngi gis euh, ku ñuy jël ay clé ñuy wane ay techniques yi ak ni ñuy duggee si oto yi loolu tamit lu ñuy jàng la am kii la parce que eh, méthode bi ñuy duggee bu gis nañ sànq ci vidéo yi ne da nga gis ne kenn dañ koy jàppee ginnaaw walla dara léegi euh, kan moo ci VIP bi ak kan moom mooy mooy mooy ki ki ki gàddu ko la moment de exercice la mais moment bu hmm. tey jii sa VIP bu nekkee ci danger hmm. na nga ko war a dimbaliwee hmm. ba mu génn ci danger boobu parce que tey jii dañ ciy gis ñoo xam ni bu ñu nekkee ñoom ñooy njëkk yee sa fitna ah voilà ay garde corps yoo xam ne ñoom seen jëmu bopp si biir liggéey bi da ngay gis ñu buuxante dóorante yee fitna si liggéey bi te pour man yaa la BIP GIGN doo leen mos a gis si loolu. mais c'est le seul corps privé boo xam ne bu ñu nekkee si liggéey foog ñu ja yàq liggéey bi. léegi léegi ko aussi am ngeen seen i langage yu bopp des fois ma dégg ñu naan la ko est dans la cage ay yooyu noonu quoi ngeen di wax loolu ci seen formation la bokk wala yéene def seen langage codé yoo xamante ni ni eh, yéen ñi ko seq di ngeen comprendre nte waaw loolu si biir formation bi de bokk. waaw hmm. ah, ci biir formation bi mais n'est pas n'est pas n'est agent rapproché qui veut mooy bu du da ngaa costaud rek parce que léegi noonu la ñuy gis ci suñu suñu autorité yi hmm. dañuy gis ñoo xamante ni ñu ngi ànd ak ay géants robustes rek ñu ne garde lañ loolu loolu aussi man gis naa sax kon corpulence bi da ci jouer wala du ci wala technique la wala lan la. waaw xam nii pour man. Euh, mentalité moo ko jiitoo te mentalité lu ko jiitu mais physique physique technique. mais costaud ah. boobu baax na. parce que tey euh, Pape Djibril mii euh, buñ ko xamut mu nekk sama garde xam nga nit ñi xam nañu fi mu toll nii xam nañu maître këntu la. si si psychologie bu nekkoon sama garde corps sax dinañ ma moytu parce que nit ñi xàmme nañ ko mais tey boo jëlee ku doy di Pape Djibril mii mu war a ñëw di ma garde amul yenn gabar yi dañ ma fay fekk riñaan ma. parce que dañ naan waa ji munu koo téye comprendre nga pare na saay physique bi day dissuader quoi day tax gars yi du ñu du ñu attaqué parce que dañ naan waa ji ay ponk la ko wër est-ce que tamit pour ci ki nga xam ne mi ngi agressé physique boobu mënut a tax ñu bañ a dal ci kaw waayam mais saa tey jii ma gis maître jël ko mu doon sama agent rapproché moo gën ma jël tey ji ku toll. waaw boobu da ngaa xam maître. Ah, non non non xamul laa wax. jël ko mu doon man sama agent rapproché moo gën ma jël koo xam ni toll na ni man. waaw d'accord parce que tey jii. tey jii mun nga jël ku am doole tey technique bi nekk fii. mentalité bi nekk fi mais la war a agressé xamul technique bi wala kii bi. mais est-ce que tey jii kooku jaasi bu jugee wala paaka moom mi ponkal bi mun na ko maîtriser. tamit te maître bi moom li nga wax nii nag mu le mu nekk agent rapproché. parce que ñoom fi mu waaw ban avantage ci xeex bi. da a ñeme ku ko xamul comme par exemple ku ko xamul parce que des fois da ngay gis gros gaillard mu jël ko tuuti ni garde rapproché projet la. mais yow boo roofoo dee de. pour yow nit ñi dañuy jël ñu tuuti rek def loolu avantage la. sax non non c'est tey xam nga ñoom ñii am xam nañ li may wax tey verre yi ngeen di takk nii sax pour ñàngal pour. gars yi bañ a gis seen bët ak yooyu. da ciy joué man man sama verre ak mun naa ko waxuma la fii mais bu ngeen nekkee ci liggéey bi. xam nga loolu day nappe. Mm. parce que kenn gisul seen bët. Mm. loolu rek am na ñu bari ñoo xam ni duñu song waa ji c'est parce que par exemple waa ji ni nee zëmm ak yi. moo tax. waaw parce que ver bët day wax. waaw bët day wax tey jii su may xool kii. damay xam ne kii mais tey jii su ma taxee sama verre mun naa leen xool yi. parce que li saa wax tamit des fois parce que même da nga gis si boîte yeeg affaire yooyu. dañuy jël ku amul. léegi boo ñëwee boo ko tiimee rek da ngay ragal pourtant amul niveau. ah voilà foofu expliqué na foofu. foofu leer na foofu expliqué. mu ngi def la différence. non expliqué différence boobu am na solo waaw différence boobu. différence bi waaw. nervi ak garde lan mooy. Ah, ak videur la ah, léegi un videur ça n'a rien à voir avec agent rapproché. videur. waaw ah ñooñu videur lañu. mais lan mooy lan mais lan mooy réellement agent rapproché. mais quelqu'un koo xam ne les prêts koo xam ne pour donner euh, maanaam vivam ak euh, client am. kon tey ji bu ma yorewee seen semis. tey ji bu xasee ba génn këram. maa ko moom moomutul boppam. Mhm. Ah. voilà mais tey jii da nga ciy gis ñoo xam ne sama waaw day wuyoo. mais parce que man maay patron. man maay patron moom sama mais fii lool nit ñi xamuñu loolu. voilà ah. ah patron bi fii boo jëlee un ministre moom jàpp na ne mooy sa patron yow da koy ah. liggéeyal rek. ah man souvent ci benn côté mais. j'étais servi beaucoup de ministres man. damay nekk sa patron doo nekk sama patron. Mhm. même boo may fay. man voilà man maa xam. c'est mais dafa am euh, benn circonstance yoo xam ne des fois dañ koy gis ñu ñu gis benn agent comme yéen di xeex am ñu ne warul xeex moom bu danger ñëwee li mu war a njëkk a def mooy fexe ba évacuer euh, VIP am moom loolu mooy ndamam mais ndamam du. créer bagarre ba leneen xew ci. mais sànq léegi lu ma wax mhm. léegi ci commencement émission bi. parce que léegi agent yi ñoom seen jëbu bopp mar formation moo nekk si ñoom tout ça c'est la ndegam am sax formation voilà discipline bi moo jiitu mm-hmm. xam nga discipline mais lépp mm-hmm. ak pédagogie lépp daf ko tënk rek mm-hmm. mais discipline moo jiitu si lépp mais léegi da ngay gis agent bi ñëw fekk benn maître fii ñëw rek boo ko bëgg a indi ah, histoire loolu de moo fi loolu de moo fi bari. waaw seen formation tamit xanaa coow lu bari bokku ci dem ba agent sécurité bu yor coow la di waxtaan ak euh, parce que da nga leen di gis la plupart mais mës naa gis benn agent sécurité bu bari coow. Ah. boo xamante ni ci discuté la nekk di werante fële làmb ba waaja waayam ja dem. waaye ça mais ñu may wax gungeekatu gan nañu. ñàkk ñooy ay gungeekatu gan nañu tey jii malformation mën na nekk si ñoom. Ah. parce que léegi école yi dafa bëri. mais dafa bëri mais am na ay école nationale yoo xamante ni. mais tey euh, c'est reconnu par mais wuy euh, non c'est que dafa am benn question ci actualité bi keroog dañu gis. Hmm. Ousmane Sonko mooy ñi koy garde si garde prochain bi. bi ñu sànnee grenade toll na benn période boo xam ni euh, bàyyi nañ li nga xam ni mooy oto bi parce que boobu affaire yi xam naa kii na loolu est-ce que loolu faute la ci li nga xam ne mooy garde de projet dañoo waroon affronter grenade yi wa ilaa nan. Euh, si parce que loolu dañ leen ciy tàggat. dañ leen tàggat yaa ci grenade. say say grenade. pompe à gaz tey jii lu ne nii break rek da nga war a am. tax boo mais grenade bu ñu la parce que tey jii du ñu sànni fii grenade. grenade moo war a la gérer daw bàyyi la fi. Ah. Mm. donc gérer tuma sa vie. kon kon daal malformation. voilà kon la wala. faute bu mag la. mais est-ce que ah, waruñu ko war a. tous man dama la ko woo dama ko war a joxe ba mu mat sëkk. même booy dee est-ce ah? su may dee ah. Euh, donc on mm. xam ni dafay war a garder sa corps keñ. mais est war ñu leen équiper ay masque à gaz. wala yooyu parce que tamit nit nit la rek. non nit da ngay pressé lépp. kon matériellement da leen war a équipé da nga da nga da nga war a pare boobu mën a parce que man gisoon naa fi kii euh, bi ñu koy xaaj euh, président Gakou boobu amoon na garde corps est-ce que garde corps bi dafa sëgg. sa sa danger bi ñëw di tàggoo. kooku mbër la eh kooku. danger ñëw tàggoo. danger day jékki-jékki di bëri sax kanam. garde corps ak est-ce que benn la. non léegi mbër yi sax léegi ñëw si gën a dugg léegi. ndax ñoom ñëpp mënuñu am ko bëri xare. waaw pour ñoom ñëpp léegi ñooy si liggéey lan projet dem ñëw ji si seen ay tëni def lu comme nga waxoon jaxasoo bi xam naa si kan mooy garde corps Sénégal xam naa problème lañ si am parce que man damay gis am ñoo xam te nii sax des fois am ñu jaar ci man wala ñëw pour def tuuti technique mais dañuy gis ne. Euh, saab boobu xam naa moom costaud yi la bëgg mais dañuy gis ne ah, costaud costaud baa nga fa mais am na koo xam te ni même man bu ma defee man tuuti rek da gis ne sa xëqët bi muy xëqët sax da xam ne kii mënut a yóbbu mais na ponkal rek <laughs> féete man sa sa Gambie Gambie moo gën a metti xaara Gambie moo gën a metti ah, te voilà Adama Barrow ba ko Yaya Jammeh ba ma gañee Yaya Jammeh ñun tag si ajuma bi dañu dugg man maa wax a autorité bi ñun si ajuma bi dañu dugg samedi bi ñu egg foofu te ñu fa def ñii dañu toll je suis seule boo xam ni man maa si toll nii hmm. te moo gën a graaw te dañ ko ñëw maîtriser ko en état militaire donc euh, avec loolu moo lay wan yëf yi nekkul ci course nekkul ci dara. mais est-ce que dafa am lu daa am ñuy wax loolu ci formation walla ci nit lay doon. mooy flair bi. le fait nga ñëw xool benn situation mën ko jàng loolu. Oh, si. des fois da ngay ñëw ci milieu xam benn pouvoir boo xam ne tey jii dama naan xam-xamu jinne ngay yara mm. lii ñëw war nga ko xam da ko war a xencu mm. kon xaj bi ñëw ci xeeñ voilà. xenciwul loo xam ni dara mooy ñëw war mais mais mais dans ce la là est ce que vous êtes bien rémunéré parce que c' est au péril de votre vie. ngeen di défendre ay nit. donc euh, parce que at euh, vie mu viwu nit moom bakkan moom dara bu ñu la doon fay milliard bakkan na ko ëpp mais je veux dire ndax ñi ngeen di faral di liggéeyal dañ leen di jël chaque mois ñu fay leen wala dañ leen di jël par heure est ce que ñu ngi leen di fay seen gëdd carrément parce que seen seen seen bakkan ngeen di joxe. waaw am nañ ñu la si jox gëdd bëgg a moom nag franchement. kon lu ñu naan les directeurs UCG Mass Thiam. ah ñu bari ñooy kii ah kon bari nga ci ñëw Diouf Sarr et cetera. ñu bari daal voilà ok. xaalisu corona xamoon naa di ko wax sax may ko eggali leen bàyyi ko wax na waaw mais dañuy fay dañuy fay par am na ñoo xam ne dangay dem mission ba ñëw bu ñu la fayee doo su mun sax jënd benn son <laughs> mais est euh, am na ñuy fay par weer. Ah. am na ñuy fay par weer par heure. voilà voilà bëri des fois des fois dafa jël moom ci am sam benn waay dafa utoon garde corps mais dama nag doo yàgg garde corps que ak élément incontrôlé la ak incontrôlable maanaam am na ñoo xam ne dunoo luubu maanaam mun ñu mu neexuñu gérer est-ce que du leen arrivé ci yéen autorité ngeen am ci koo xam ne moom bis boo leen pare ak moom ci journée bi moom bu leen wootee doo leen dem parce que moom affaire sécurité du ko soo du ko kii de fi man ma amal jël garde corps gaay tàmbaas xeer am na dumaal ma ko affaire yow monsieur monsieur arrivé yow nga expliqué ñu sa cas léeg-léeg nga gis si ay clients yu compliqué yoo xam ne dañu naqari nekkal mais lu ñu na boo amul maîtrise rek voilà doo nekk ñoom mais da nga koy tenir tenir ko tenir ko ba keroog ba ngay ba ngay presse mission bi. léegi tey man question ba lay posé. ma am ak Omar mii problème bu leen fontoo ko. waaw léegi ma am bëgg koo duma <laughs> léegi ma jël la garde ko ñëw tàppaas ko mu jóg di kii rek euh, bu boobaa da nga war a dal ci kaw. non du ma naa nangu mu lay la. voilà nga maîtriser léegi seen problème yéen ñaar yaa leen xam. voilà léegi nag boo ma ko maîtriser leen. waaw ma ko. Oh. ah léegi xam naa ni may def. ku ma amatil jafe-jafe wu jël garde corps. <laughs> régler sama problème jàll bi euh, <laughs> pour affaire formation bi. Euh, même Omar dugg na si léegi si flair bi. mais gisoon ne si formation bi duñ la si former euh, ful bi ngay dem. ak milieu bi ngay dem chaque fois ruq yi ngay dem ba xam nit ki booy boo leen ñëwee rek war ngaa mën a xam ne fii kat. Euh, sa sa VIP war fa mën a ñëw. wala fii bu fi ñëwee en danger la wala effectif bi da ko war a yokk wala wala da ko wala ni ngeen di duggee ko loolu yëpp dañ la koy tàggat ci formation. Hmm. dañ lay jàng état des lieux. balaa hmm. ngay dem fenn. sa VIP balaa muy ñëw comme par exemple ci plateau bi. am na élément bi njëkk ñëw. xool état di lieu bi hmm. xool def fii baax na wala baaxul fii ndax laaj na effectif boo xam ni tey jii parce que tey jii da nga gis ñoo xam ni dañuy xam ne fii amul danger ñu ñëw jël dix garde corps wër la fii yëpp. Ah, non normal ñoo xam ne nag fii nag jour bi dafa am danger ñu indi fa benn agent rapproché. mais fi mu nekk nii ñu ngi ci fin au temps bi li ñu des moins d'une minute la juste rek une dernière question ci bu fekkee ni yéen dangeen nekk di ñi nga xamante ni ñoom ñooy professionnel métier bi ma leen mën a tuddee noonu léegi tey jii mbaa constitué ngeen en association wala dara pour assainir seen milieu ñi ci bokkul ngeen génne leen ci wala ñi war a adhérer adhérer. ci war a ne ci. waaw am na nag am na benn chef boo xam ne ñooñ ko naan euh, chef Ndour. dëgg neex yàlla ba fan yi muy ciy def ay séminaires yi am solo voilà ay séminaires yoo xam ne euh, université léeg-léeg dafay woo éléments yi gën leen ñaaxaat si liggéey bi moom da leen groupe yëpp dañuy yónnee message ñëppay jot message ah, mais foog ngeen assainir milieu bi quitte à wala si si am na am na ñooñu si ñooñu si nga baal ma de am na lu ma ko bëggoon laaj des fois ci risque yi da ciy bokk maanaam dara xew mm, est-ce que am ngeen autorisation de port d'arme wala da ngeen def armation parce que des fois aussi tamit mën ngeen défendre kilifa comme li daloon euh, mooy euh, candidat pur bi fële sa Sall après garde corps leen mujj a jàpp est-ce que yu mel noonu aussi tamit am ngeen cadre juridique boo xam ne da leen di protéger si da ngay dem euh, déposer ci sa port d'arme loo xam ne sa hmm. arme bopp la. mais léeg-léeg dañ siy gis ay éléments yoo xam ni seen boss yi ñoo lay jox arme wala tey ji yenn secret yi sax waruma ko wax. ba yu ñuy yare ay. briquet à gaz la. voilà te jànguñu technique jànguñu rien du tout. Mhm. souvent nag loolu mooy indi loolu pour ñoom lépp jaasi la paaka non non non non waaw waaw bétti xam naa foofu la ñuy tëjee xam naa affaire garde corps rapproché aussi affaire waaw am na solo xam naa war nañ war nañ see mën a gën a gën a yaatal léegi sa dernier mot foofu pour nga euh, sama dernier mot maa ngi remercier ñu nekk si plateau bi Sénégal garde corps jëwrin Basirou Ka mi BAS parce que dafa doon ni koo xam ni dafa yëkkati ay terrain jox ko ay garde du ba pare jël leen wutal leen ay xëy si moom kër euh, Massar da nekk fu ñu naan Tuampel franchement moo ñu def social lu bëri bëri bëri. voilà voilà voilà léegi euh, béti xam naa dinañ ñëwaat si garde gën see waxaat lu gën a yaatu incha allah comme jamono yi moom jamono la euh, léegi ba mardi incha allah.